dafa juddu pour le développement de Kaolack kat programme CMI bi buñ ko buñ ko réalisé ndimbal la boo xam ne ñëpp danañ ci mën ñu bari danañ ci mën a jot te da leen amal njariñ parce que fajkat Sénégal dafa seer lu seer la kon nañ fexe ba Tafa dugal ci loxo ñun dañ doon xalaat ay 300 personnes 100 personnes wala boog 500 personnes biñ ko waxee mbir mi ñu dem waa CMI waa CMI wax ñu programme bi ni mu amee solo. dem leen ba 2000 ba 3000 personnes ma fay ko 3000 personnes lañ lañ tey moom la ñu enrôlé carte yi li ci jot a bare mi ngi nii carte yi nag tuuti moo génn parce que xam liggéey bi ba léegi am na am na groupement yoo xam ne enrôlé leen des na ñaari groupement am na ñoo xam ne seen yi pareegul moo ñu tax a jóg ñu fexe ba Tafa Njaay njariñam googu law Kawlax léegi nag ñun dañuy politique comme dañuy politique nag bi ñu egsee ci bis bii muy tànn président de la République élection président de la te élection président de tànn président tànn njiitum réew day bis yu am solo ci un citoyen kenn warul toog di seetaan loolu képp ku citoyen war ngaa dugal sa mbir ci bu ñuy tànn président de parce que tànn président de la République bépp citoyen daf ci war a taxaw moo tax ñu bi ñu waxtaanee gëstu xool 19 candidats yi nga xam na ñoo jàll ñun daal ki ñu choisir mooy Ahmadou Ba loolu nag defuñ ko ci làmbatu dañoo xool ñi nga xam ne mooy 19 candidats yi parce que président de la République koy tànn war nañoo xool nit ki ndax am na xam-xam nit ki ndax am na jaar-jaar nit ki ndax am na dal nit ki ndax am na yar loolu nag ñu xoolee 19 candidats yëpp loolu ñun ci Amadou Ba lañ ko gis amna yar amna dal amna xam-xam amna na jaar-jaar inspecteur des impôts la principal inspecteur des impôts principal jiite direction des impôts 8 ans kon mbokk sénégalais li ñu bëgg bu leen dof na ngeen ubbi seen xel au moment ngeen dugg ci erreur ngeen xam ki ngeen di dégg seen réew parce que aduna bi dafa jaxasoo lu bari mën na fee waaye nag buñ ko dénkee koo xam ne xam na état yàgg na ci dara mënu koo nax te xam ngeen ne suñu réew dafay am yàlla da koo baaxee moom am ak gaz te loolu fu ma mës am am nay nit ñoo xam ne dañuy jonkoru pour jéem a ñëw napp ñu jaxase ñu suñ biir pour di exploiter suñu pétrole loolu nag buñ ko denkee koo xam ne amul expérience dugal nañ suñu loxo ci uwa nañ ko dénk koo xam ne am na expérience kon boog maa leen di ñaan ni ngeen mobilisé wu depuis 4 mois ñun ak yéen la lu ñu leen digoon foog naa am lu ngeen ci gis parce que ñun bi ñu commencé. dañoo dugg ci groupement yi xam nañ ne électorat Sénégal jigéen ñi la ku jigéen ñi àndal yaay gañe moo tax ñu suñu liggéey ci jigéen ñi lañ ko jëmale ak jeunesse ñoom lañ dem rencontré ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen kan mooy Tafa Ndiaye wax leen kan mooy Amadou Ba bañ am yaakaar ci ñun waaye wallaay seen yaakaar du tas bu ngeen jàppale Amadou Ba ba mu falu kaw wax da ngeen gis beneen changement